ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dina nañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew mi wala bitim réew ñu jox leen ndokkeel boo xam ne mi ngi jóge ci xadra ba ca Cheikh Sidi Aboubacar ibnu Alaji Mansour xalifa général de Tidiane ak njabootu maam Cheikh Sidi Hadj Malick yépp bëtte ko ci sunu sëriñ sunu soppe sunu xarit sëriñ Muxaasim Ñas bu maam Xalifa Ñas radiyallahu anhu bu maam Abdullahi bu njabootu seexal islaam alaaji Ibrahim Ñas yépp ñëw ci jataay bi nuy sëriñ si fi fekk yépp ndokkeel ñi doon tagg yonent bi ñaan yàlla sunu jofeel ci yonent bi yàlla na ko yàlla yokk di nuyu sunu wayjur wu tedd wi nga xam ni si moom lañ reere sànq ak sunu doomu baay bu tedd bi nga xam ni moo ñu toppatoo ñëw ci biir kër gi nag nuyu Serigne Cheikh Ahmada Tidiane yi ci turu sëriñ Mouhassim jox ko cër yi ko yàlla jox yëpp nag ak wàccuwaay yi ko yàlla jox yëpp ñaan yàlla yal na la yàlla dolli sagal yal na yàlla yàggal teraanga ci sa loxo yàlla mi ngi fépp. dégg na ñépp gis na ñëpp waaye du déglu ñépp am na foo xam ne ku dem bàyyi fa yàlla ku ñëw fekk fa yàlla ku génn nit bàyyi waat fa yàlla ku ñëw ci bërëb bi rek xam ne yàlla mi ngi fi ndax gàññ nàññ moo ko gën gàññ nàññi moo ko gën mën na ni gàññ coddu ni nàññ xaw ma dégg ngeen maam déet mën na ni gàññ coddu ni nàññ man ngaa tànt mbedd mi angal ba angal nit ñi bari oto yi bari mu ni gàññ ñam yi bari waaye du ne nañ ndax du am leer mais ku dugg fii xam ne leeru Cheikhu na Tijaani ak yonente mi ngi fii yal na yàlla nangul ñu Cheikh Ahmad Tidiane ñi ngi lay ndokkeel ci turu Serigne Mouhassim léegi bi mu génnee ma gis ko mu dem jël yére bi dama ni Cheikh léegi lii du gulet vingt cinq ans bi ma koy xam ñuy ànd ki mu njëkk a soleel yére ci àdduna mooy Mouhamed Ndao Tyson booba Tyson nekkoogul roi des arènes li ma lay wax ni yàgg na boobu mi ngi sol benn choix bu ñuul ñëw fii ci terrain unité 17 sëriñ Moxa Si mii dem këram solal ko yére taxaw ni ma kii kenn mënuta a tee ñu dégg ko ci li mu nekk xamoo jaan bu ndaw ak bu mag amul bu la mat ñu lugg la jaan bu ndaw ak bu mag amul bu la mat ñu am na ñoo xam ne dañuy toog di gis démb di gis tey di xam ne xew suba am ñoo xam ne mënuñoo gis fi ak miir bi maa ngi ci wax ak sëriñ Cheikh Ahmadou léegi mu may wax euh, cofeel bu Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy amoon ci El Hadj Ndaw gis nga li am solo mooy wax ji dafa bari mais coow li ci ten bi bàyyi gaa yi amul bag la gis nga mën a mën a joo gis du yow da bàyyi ban ni la yow la mën a joo gis da bàyyi ban la yow ku ku ku tudd sa lépp saaga sa bopp Serigne Cheikh Tidiane Seck waxoon moo ne ko ku ni sama bët ni sama bakken ni sama sikkim ni sama dënn ni sama biir nee na nga noppi soo ko soo continuer rek saaga sa bopp gis nga Cheikh na Tidiane fi ngay xamee dooleem cheikh hors série la da koy seet ci ñi mu njaboote ku ci samp ndënd koo làngal mu daaneel la alxaaji Omar Ndaw bi ngeen doon wax léegi nitu yàlla yépp amul ku ko ci raw billahi lazi la ilaha illa amul ku ko ci raw gis nga ñiy tiitaroo di wax naa damaa demoon géej ak damaa nappi rek ci géej gi laa jaar ak ci gaal gi laa jaar jëral sa oto jaar ci géej gi boo deful ndànk jën reere la baa nga dig de gis nga kumba sa dem Ziguinchor ci dugg ci bato bi su bato bi demee am na benn dëkk bu neex karaban soo fa karaban boo fa tolloo da ngay dégg ni géej gi di riiree nga boo ñimee da ngay yëru ci fenêtre xool ndeke dauphin yi ñoo la topp ca dauphin bu ko yàlla xiree moo ëpp bato doole ndax mën na koo daaneel mais El Hadj Omar Ndaw dauphin ak bato ak gaal ak borom géej yëpp mën na cee xuus dem ca ko gis loolu nit yàlla ay def loolu loolu Cheikh nu Tidiane rek moo ko man leeru Cheikh rek moo am loolu moo tax léegi bi ko sëriñ bu wax ma ni ko ca lii yéeme mooy nit yàlla tax mu garaaw mooy ku bañ a xeeñ parfum bu ànd ak koy jaay parfum bu la neexee xeeñ bu la naqaree xeeñ yëngani bi ngeen ko tàmbalee way rek la El Hadj Omar Ndaw nay fi ca gis nga dootu fi jug ca da ngeen a may chance quartier bi am na lu kin amul tay gis nga ba korok ñuko fi defati do ko fi do ko déggaat fene ko du kër Cheikh Ahmad Tidiane yi waaye bi dootu fi genn dootu fi genn dootu fi genn ba koroog ngeen di ñew moo tax neuf raw na tay benen unité bu doon mom ndax El mar Ndaw mo tax Cheikh Cheikh yalla yalla fayal ñu la ñi ngi lay yu wax ni muhasim suñu lepp la man dama teddun parce que ci dama yetlu ci tono fane yëpp ma ngi relé ci deju sama bàjjan ay dem bu serigne Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum nek serigne abdourahman ak serigne mam ousmane mais bi ma wooyee rek dama solat yëre parce que foy juga jey lèr ak barké du doy dama jugat sol rawati rawatina mom cheikh cheikh yalla la yalla doli yiw yalla na la yalla doli waxon na la ko bin daje keur mu ñun sop na la bu baax baax parce que ki am avion ki am mbam di la ame bu amé avion bu ko laaj place ci li nga def yi reyna trop fexe ba defar dara jox ko sa wayjur ak say bok yaatal ko ni ma sal bi bo gise ma yaatal ko ni dama ko def salu taalibi ndax ta juk ci cérémonie yonent bi ak Cheikh Ahmad yani sa mbir yeb la yalla yaatal yalla na yalla dol yiw di bekk bu baakha baakha baakha ba ñun manam dañ ci dañu mandi ak ki ki moma ñeka daanel sama Cheikh Cheikh bashir ya ma ñeka daanel dama kontan. bi ngay woy sama xol dafa sedd guuy ca parcelle dafa am nu muy tëddee fofu lay jax rek jox serigne bi wala ngeen continuer man dama doyal fi man sax damaa màndi lèr parcelle 72 mosquées mo fi né 72 mosquées 72 mosquées yépp ci sama loxo la ne gis nga bi ni xëccoo ñi di xëccoo leneen ku rek naa jox ma lii jox ma lee man dama ne nan ma jox 72 mosquées yi ñu ni ma looy doy 72 mosquées yi man leen ma koy seetu chaque fi ne chaque dimanche am na benn mosquée bu may dem xool ndax lampe yi am na. wala am na moquette wala am na margo wala am na clim wala am na parfum wala am na ànd wala set na wala setul matériel complet ak benn jigéen bu ñuy wax soxna Xadijatu ñu ànd liggéey ko fi mu ne dañuy commencé de 1 à 26 tous les dimanches am na benn mosquée bu ñu dem ba am na benn paa boo xam ne paa jumaa la ma tuddee fan yi rek am na benn jumaa boo xam ne ndeysaan sëñ Moxaasim mii ci ñaanam ak barke maamam ak barke maam xalifa ak bar Cheikh na Tijaan yi benn bu baax moom ma xool ba caag mu ne ma lan a bëgg ma defal la ko ma ne ko dafa am jumaa bu nekk disi boo xam ne sëriñ si mii ci taxawaayam lan ko liggéeyee ma ne ko jumaa ji dafa commencé daanu ca bëgg naa mu defar ko mun ma lan nga xayma de buñ ko defaree man nañ ko defar ma ne ko seetal ñu dem fa mu jël 12 millions jox ma 12 millions ni ma liggéeyatal jumaa ji ma defar jumaa ji ba inigre ko bërki dem ci barkeem moo tax kii jox nit ñi ñuy lekk di taxawu néegu yàlla yi dajale nit ñi ñuy tagg yonent bi tagg Cheikh Ahmada Tidiane yi kenn mun la tee am jàmm cheikh yal na la yàlla may jàmm képp ku fi ñëw sa ajo yàlla na ko yàlla faj barke cheikh al islam alaaj ibrahim barke kin fi doon tagg nag nga xam ni léppam yàlla la léppam yonent bi la léppam cheikh na tijaani la mu El Hadj Omar Ndaw lépp luñ fi ñaan guddi gi dina nangu dafa am benn waay bu nekk fële jënte di dafa naa moxaas mi xam na ko ñu koy wax Serigne Cheikh Tidiane Touré sa mbokk la yéen a bokk dama daan gis suy jaay gerte ba ci yàgg day sumi yëree rek daal di sànni ay xeer daw yalla dafa am lu ko xir ci walu xel mi jour mu def ko rek ma japp ko solo ko yere yi yow ko solee yere yi mu xawa dal ma japp loxom nax ko ba mu dal man ko fan nga dekk mun ma supprime man ko xam man man nga ngoy yobu sen keur mun ma waw ma and ak mom and ak mom and ak mom ba ci yaayam Cheikh Touré yaay ji ni ma baat dafa defati dara man ko daf non yeungu yaay ji ni ma togal ma tok mu ma yow yalla beug na man ko am ah, munima ki ma kii bi ko ëmbee ba am juróom-ñetti ci laa tëdd ma ak baayam guddi seen benn lumière bu bëtt asamaan si di ñëw di wàcc ñëw ba tiim ma ni ma kunkung ba xool ko mën ma man la El Hadj Omar Ndaw billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa li ma lay wax kii xam na ko gerte lay jaay ak tàndarma nee na yaay ji nee na ëmb ba ba am huit mois huit mois ma tëdd baayam tëdd ma seen benn leer bu bëtt asamaan si di xotti di ñëw mel ni avion bàyyi bi ni ma siggil ma siggi seen lu bëtt terrasse bi lumière bi tàkk bàyyam ni ma xam nga kii man ko déedéet kii xaw ma ko mu nee na lumière bi tontu ko ni ko man la El Hadj Omar Ndaw nee na mu ni cëpp daal ni ko ki nga ki nga ki nga ëmb ki nga ëmb Cheikh Ahmada Tidiane la su juddoo góor lay doon mais melokaanam nu mel bàyyi leen ko ku ko laal di nga man laal ci ëllëg yomal xiyam loo am ma am ko doo ci séddu ku ko teral yàlla teral la waaye fi ma nangoo ni dëgg la mooy benn bis dafay def yooyu muy def noonu di ci ci ci gerte geeg yooyu gis nga boo ko bëggee jaay day daw ko waxaasi mi indi lépp ma mu jënd lépp baa man maa jënd lépp gerte gi yëpp boo ko calculé matul 3000 ma jox ko 5000 baa mu waxaasi ko ma jënd gerte gi jox ko taal yi benn bis damay jënd gerte gi yam ci alaaji as ndaw tra ndukuman alaaji as moom moomu ñëw mu ne ma Abdou xam nga kii ngay jënd gerte gi ma ne ko sama xarit la mu ne ma fu ma ko gis jox ko ñaar fukki junni jël ñaar fukki junni jox ko daa di may wax ma ñëw mu daal di ma yëg nga ni moom mii El Hadj Ndaw la avant muy judd la El Hadj Omar Ndaw déclaré tur bi moo tax ñi ko xam dëgg sax dootuñu ko laal dootuñu ko jege dan koy bàyyi rek day toog ba càgg rek daw dugg ci koñ bi day toog ba càgg rek daw dugg ci koñ bi bu duggee daa di wax génnaat dem ma dem seeti yaayam yaayam ni ma gis nga frère yi ma frère bi ñëpp am alal ñi ay 4-4 ñi ay milliards ñi ay mais suxluwul seen dërëm du fa yendu du fa lekke du fa toog kër muxaasim wala sama kër su génnee bu dawee daw ba sori daa daa di fëgg dëni bi man ni man la Cheikh na Tidiane yi ma ni ko Chérif mun ma man la El Hadj Omar tudd avant may ñëw yuuxu moo tax euh, euh, euh, El Hadj Omar Ndaw benn affaire la Cheikh El Hadj Abdoulaye Si boo toogaan ak moom wax la ci lu bari Cheikh Seydi boo masaan toog wax la ci lu bari kër Cheikh Ahmada Tidiane Chérif yëpp mbooroom waliyu yi mbooroom xulafaa yi mbooroom borom xam-xam yi ku nekk xam nga kala man mais ñoom ñëpp a jox Alaaji Omar Ndaw cër parce que nitu yàlla la te nitu yàlla ak sëriñ bokkul de sëriñ mën na xam tey lu gis suba mën na reer bidanti mën naa lekk lu neex te di nelaw mais nitu yàlla day xam tay xam suba xam gannaaw suba xam gannaawat suba yàlla na yàlla yokk suñu cofee ci alxaajo ma ndaw lépp luñ fi jàng yàlla na ko yàlla nangu Cheikh Ahmada Tidiane yàlla na yàlla sàmmal ñu la yàlla na yàlla taxawu la di renouveler suñu cofeel di wax ni li ngi doon tagg yonent bi ak alxaajo ma ndaw billahi lazi la ilaha illa huwa fii ku fi jóge jaratul ngay dem di seet benn tëddal rek nga nelaw yaag alxaajo ma ndaw sa affaire di dox yaag moom sa affaire di dox ngay dund muy neex bassin di gën a neex ceeb bi di gën a nooy soxla yi di a bari oto yi di gën a bari yaag ñoom yaag ñoom yaag ba ëllëg aljana nga gesu gis alajo ko do mu dugal aljana yal na ko yàlla bul defal allahumma salli ala ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne ngir mën a xam mbooleem loo xam ne dina xew fii ci biir réew walla wala bitim réew